السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ini lindungi Bapak Ibu Rupiah ya Allah subhanahu wa ta'ala Mu defal ñu tawfiq ci defal leen ko kon ci jotaay bi weesu ci silsile bi ñoo ngi yemoon ci li ñu mën a tudde étape lañ Malick ci ci étape boobu maa ngi ci digg troisième étape dafa collaboré ak tubaab yi loolu lu ñi nga xam ne ñooy bindkat yi lu ñu werante mooy collaboration bindkat bi ñu ci liñ ci dëppoo gisuma ci ko wax lu wuteeg loolu xatta ñi nga xam ne sax ñooy ay taalibeem te bind ci wax mooy jëmmi collaboré moom loolu wute wuñu ci fa ñuy wutee mooy ci interprétation collaboration boobu ñu ci ëpp la ñuy faral di feeñal mooy ne collaboration boobu noonu ab stratégie la woon moo nekkul ni dafa bëggoon tubaab yi wala da na bëggoon a jàppale waaye stratégie la laloon ngir daal di mën a jàngale kon ne ab jàngaleem euh, loolu am na interprétation am na lu koy dëgëral am na thèse yu koy dëgëral ko dëgëral mooy nit ki mu xool gis contexte bi gis ne am na ñu ko jiitu ñoo xam ne ñenn ña bokkoon nañ ci tariqaam ñeneen ñi bokk ji woon am na ñu ko jiitu ci ñoo xam ne ñoom ñoy Euh, ay buur yoo jàmbaar ak tubaab tubaab daal leen di tubaab daal leen di faagaagal ñoom ñëpp euh, ku gis nu mel noonu mën nga ah ne ah léegi di xam naa ñu ne suñu defee li ñuy def ñu jaar ak ñoom fi ñu jaar ak ñun kon nañu changer stratégie euh, dina ko dëgëral tamit posture bi nga xam ne amoon na ko ci njëlbeen gi posture yenn ci bind yi posture Euh, li ngeen di wax am na mooy xaw a dëgëral waaye man su fekkee ne sama arme mooy lan mooy sama arme mooy sama kurus mooy maay sama sama kurus ak sama jàngat mooy sama arme mooy am benn posture bu ne boo xam ne la nekkoon posture buy wane euh, ànd ak ñoom wala wala wala bëgg wala bëgg leen loolu mooy li nga xam ne mën na valider thèse mooy thèse ne waaw collaborer na collaboration dafa moom. mais collaboration benn stratégie la woon dafa comprendre woon ay mbir am na ñenn ñoom dañuy dem bay jàpp sax loolu ak tagg koy def mooy ña nga xam ne ñoom ñoo euh, doon xeex ils n'avaient rien compris voilà ils avaient pas amuñu woon euh, gi El Hadj amoon wala ña nga xam ne ñoo xaw a euh, fexe ba ba ñu tubaab mere leen ba yóbbu leen ñoo ngi seen cuune la am na ñooñu noonu lañ koy interpréter mi nga xam ñoo gën a fanatique ñoo gën a. xam ne euh, dañuy gis ne seen interprétation euh, dina sori objectivité ala kulli haal interprétation am na lu ko mën a lu lu tax nit mën a xalaat lu euh, xalaat lu mel noonu nag tamit xalaat ne kii ab juddit la di jàngal Qur'an jàngal Qur'an wanewul woon wóor àdduna lool bëgg na lool kon lépp lu war a def rek da ko def teg ko ci li nga xam ne mooy stratégie pour daal di mën a ñogal daal di ñogal nag te wut su fekkoon ne sax loolu lañ koy valider tes boobu te wut jëf ji bu la nekk njuumte maanaam ak nañ koy eh, nam ko defee ndax li nga xam ne mooy firndeel collaboration boobu mooy ay feera bokk na ci fay ko firndeel mooy lettre yi nga xam ne liir nañ ko xam ne da ko bind askanale ko ñi nga xam ne ñoo koy topp ko ñenn ci ci ci Sénégal yi ak yenn attitude yoo xam ne amoon na ci eh, digganteem ak tubaab yi jàppale leen ci yenn mbir yi bokk na ci euh, jàppale leen ci recruter yi nit pour la pour jàppale ci guerre ci guerre mondiale kon loolu moom c'est des faits yoo xam ne kenn mënu ko euh, kenn mënu ko euh, kenn ko teggi li mu des loo xam ne dafay xaw a va à l'encontre ci interprétation am na ay mbir yoo xam ne dafay xaw a teyal xel ci interprétation boobu li jiitu mooy contenu lettre yi contenu lettre yi ak tagg bu leer moo ci nekk zahiru qawl mooy kii li muy wax nii ay feere yoo xam ne dafa jàpp ne lool mooy da jàpp ne kii li wax ni loolu la ko gëmee ndax ay fee la mooy su fekkee yi tubaab yi nii avant ñu ñëw fekkoon nañ fi nit ñi eh, amoon nay xeex diggante buur yi moom tudd na loolu mu boole bien fait yi tubaab yi def mooy eh, boole ci mu leen boole daal di fexe ba xeex yooyu boo ko reyandoo amatut nee na eh, économiquement. mu ci gisinam avant tubaab yi di ñëw dañoo delloon ginnaaw ñu fi nekkoon mu ngi la woon assuré dara moo xam ci wàllu euh, àdduna walla ci wàllu diine xatta sëriñ sax yi fi nekkoon euh, yore yu góor euh, dimbalu ñu leen ci dara contrairement ak ak tubaab bi ak li muy wax ne lii ndogalu yàlla goo xam ne yàlla goo teg pour tubaab ñoo daal ci protéger wax yu leer yooyu noonu mën na teyal xel ci ne lii stratégie la woon wala noo xam ne ki di ko gëm dëggantaan donte ci ginnaaw loolu gëm na gëm la pare am avantage am ak tam wax ji mu wax ne ñii dañoo respecté sunu dañoo respecté sunu sunu sunu sunu diine loolu bokk na ci liy teeyal xel ci interprétation mel noonu leneen li nga xam ne mooy teeyal xel tamit ci interprétation mel noonu mooy ñi nga xam ne ñooy mën nañ tudde archiviste si Sénégal yi te ñu bind ci histoire Sénégal ñu bari ci ñoom dañuy xaral di di wax lu xaw a doy war loo xam ne man sama fee foo du te loolu tamit di symbole Sénégal dañuy wax lu clairement ne dañuy volontairement dañuy nëbb ay archives yoo xam ne sax naam euh, archives yoo xam ne euh, dañ ko déclassé archives mën nañ koo génne ñoom suñuy bind su ñuy tasaare euh, siama dañ koy nëbb waxuñu sax yi nga xam ne sax nag léegi ba tey jii nii kenn ba tey kenn public amaguñ ci amaguñ ci li nga xam ne moom mooy mooy accès ci seen i wax da ngay gis ne la ñuy wax ñoom lañuy ñu dafay compromettre ay kër ay kër yi diine dafay compromettre li nga xam ne moom mooy euh, ay marabu moo tax bu bañ a heurter ñooñu pour bañ a euh, heurter seen seen réputation ba compromettre seen réputation mun nañ ko waxee noonu pour bañ a tilimal seen der wala pour benn euh, ñoom la ñuy tuddi équité te man loolu war laa ko tuddi parce que sooy def travail historien da nga def travail yoo xam ne bu boo xam ne lan la war a sant mooy da nekk koo xam ne nekk ku ku ku ku objectif c'est-à-dire relater les faits rien que les faits yow interprétation bi ni ngi def loolu waruloo ça t'importe peu yow bul ñëw di nëbbali histoire ngir ne pour te pour sa gisunu bopp yow te su ma waxee dañuy tooñ kii wala maama kii kii loolu dëgg duñ xam kon loolu yooyu sax da ngay traiter nit ñi parce que histoire ba nga leen di ba nga leen di ba nga leen di présenter seen biais ndax information yi nga leen nga leen di nëbb day changer. seen gisin ci réel ci ci ci ci ci histoire euh, te ñu bari ñoom damay gis ñu koy wax mais ci sans sans te dañuy jàpp ne sax lañuy def noonu dañ dañ ko teggee seen bopp te loolu la ci ci ci ci travail euh, ci liggéeyu intellectuel insulte la ci liggéeyu historien le fait que ñuy wax ñoom carrément euh, dañuy siama dañuy nëbb yooyu noonu man sama sama pose par naa ci diir benn boo xam ne ça fait waaw doote ne ko ci moom kese ko gisee xam ne dafay daf lay daf lay li ñu génne lu ndaw nii rek am na lu ko lu ko lu ko yées lu xam ne lu moo gën a compromettant te le but c'est pas de comprendre quoi c'est juste de rester les xam dëgg surtout na su nekkee ci jamono yoo xam ne ñu bari dañuy woote ay mbir euh, seen imaam def ñu dara seen imaam euh, ñu seen imaam bañ xeex ñoom seen ñoo seen seen imaam def ñu dara jël euh, seen i seen i seen i doom ci loolu ñu bëgg cee basé wu daal ñu defi jaam ñoom ont droits yemoor dañoo war wara jébbalu seen i baay ñoom ñoo eh, ñun war ñoo wax ñoom ñoo war a wax war ñu leen a critiquer wamuñ sa droit am benn position seen gisin seen gisin parce que ñun on a rien fait à un moment donné historien bu wala euh, un historien archiviste bu ñëw di nëbb yooyu c'est c'est un traître c'est un euh, à chaque euh, complice la ci ci daal di des nit ñi des ci li nga xam ne moom mooy mooy obscurantisme des ci ci ignorance am na benn activiste bu mu siiw bu mag mi ngi tudd Saliou Saliou Mbaye am benn gan mën nañ ko wañ tuddee disciple nangam ne Mor Dieye bind euh, ci relation entre l'autorité coloniale de la République occidentale française AOF et les chefs religieux et coutumiers du Sénégal lumière des procès-verbaux de libération du conseil privé Mor Dieye euh, mu mbir bi ki mu ko tuddee mooy Saliou Mbaye le mélange offert au professeur euh, Saliou Mbaye ma muy bind ci ma muy ñëw dafa am fu muy je dafa am lu mu wax euh, euh, lu doy war moom nee na ñu leeral leen ko ngeen ngeen dégg waaye pour nga xam ampleur ak tamit yi tax euh, des fois fekk na stratégie kese pourquoi ñuy de que marabout yi stratégie pourquoi si amaa ñuy nëbb ay mbir nee ce qui concerne les récits tirés des correspondances ou procès verbaux des archivistes du conseil privé nous avons fait le choix, nous avons fait le choix de n'aborder aucune, aucune information, quand bien même déclassifiée, relative à un quelconque rôle peu glorieux joué par des contemporains autochtones de l'époque coloniale et dont l'évocation pourrait porter atteinte à l'honneur ou à la dignité de leurs descendants. En effet, faire un choix contraire reviendrait à trahir les valeurs éthiques, déontologiques et morales du professeur Salim pour l'honneur duquel l'ouvrage Hommage, dans lequel cet article est publié, est concentré Tout au long des plus de 20 ans passé à la direction des archives du Sénégal, Mouchembe a toujours su trouver un équilibre entre l'obligation professionnelle de mettre à la disposition du, des publics les documents d'archives dont ils ont besoin et la nécessité de protéger les données personnelles, la vie privée et l'honneur des personnes et des familles sénégalaises. Donc en fait, euh, euh, depuis qui qui qui qui la euh, cest à en fait comme oui information peu glorieux pas digne pour protéger des des familles les protéger de quoi de la vérité

mën na indi suñ ko indee mën na indi eh, des fois pour euh, mën na indi fawda je peux comprendre te décision boobu ça c'est pas bien archive moo koy jël loolu ay les peut-être les autorités publiques ñoo war a jël décision yi mel noonu mais sur benn base benn base rek base onze mooy dañuy nëbb ay mbir mais pourquoi léegi ñu duñ nëbb lépp kon pourquoi des fois ñuy génne mbir yoo xam ne ba su fekkee ne ceddo la wala bourse seen waxtaan pourquoi ñu koy génne pourquoi bourse seen c'est on étale clairement que bourse n'était encore là

damay ci sant ci l' interprétation bi ñuy gaawante di joxe ci ne lim na Isra parce que am na yoo xam ne ko nëb parce que y a des choses yoo xam ne moom sax les euh, faits sont têtus <laughs> euh, euh, correspondant yi nga xam ne correspondance amoon ci diggante privé diggante li nga xam ne mooy tubaab yi ak sëriñ si ak ñenn ci Sénégal yi tuutoon loolu la chaque ne dafa am importance pour ñu mën a xam ku nekk rôle ba nga. rôle bi nga rôle bi nga rôle bi nga point bi nga xam ne moo tax may douter ci interprétation mel noonu ne stratégie la woon wala bokk may remettre en cause ne stratégie kese na waaye du adhérer ci ci nañu nekk donte nag lu nit mën a dégg la lu nit mën a comprendre la waaye dama jàpp na mun na beneen yeneen mbir yoo xam ne ñoom ci bari duñ ko tudd te dafa am solo mooy ban rôle ban influence la zaawiya ba nekk ca Aynu Maadi ba nekk ca Algérie ban influence la amoon ci zaawiya bi nekk Tiwaawan wala ci yeneen i terme fa tariqa bi cosaanoo ñoom ban influence lañ mënoon a am ci position bi nga xamee ne Alaaji Maalik am na ko Sénégal jëm ci tubaab bi Fadoua jàpp na foofu la jar a taxaw ne mi ngi gis mbir xataa rawaan bay eh, ci ñaari teesam mi gis yëpp mu bind ko gis ne loolu daf koy eh, daf koy eh, du ko du ko du ca du ca andiw kenn pour le moma mu def ci ñi ma Sénégal yi ci bind def rapport boobu mu def li nga xam ne mooy rapport entre mooy influence bi nga xam ne. mooy xibaar fa la jóge buñ fàtte ne eh, Ahmed Tidiane maam mi nga jóge fële ca ca Algérie ginnaaw gi ci la dem daal di eh, si nañ ko génnee Maroc defoon nañ ci vidéo tax mu jóge Algérie ba ñëw Maroc daal di Fès ba fa nga xam ne plus plus précisément eh, à Fès kon mbir mi cosaan bi foofu la ñooñu tamit mooy xalifa général gi nga xam ñoo ko wuutu amoon nañ influence amoon nañ en tout de toute façon càllale gi moom fa lay foofu lay dellu amoon nañu influence léegi xool contexte boobu tamit la xew qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé foofu la xew foofu noonu mën na tax ñu comprendre une partie li nga xam ne moo xew moo xew Sénégal effectivement soo demee xool Algérie da ngay gis tamit tijaan yi ci par rapport ak li nga xam ne moom mooy euh, tubaab yi gis ne même évolution donc koy gis ci ñoom ak Alaji Malik yëpp amoon na à donné méfiance même à un donné des accusations sax ba ñu am ay mbir yu ñu def ba am mbir yu xew après ñu gis collaboration totale sans réserve mu am beneen mbir buy bu correspondre ak li nga xam ne mooy changement wu Alaji Malik mooy benn changement ci hiérarchie de ci plus haute sphère de

joué na ko ak loolu kon naka dama mën influence ak li nga xam mooy taxawaay yu tam ne mooy ay euh, Ahmed Tidiane kon ndax position Ahmed tijan wala Ahmed euh, fon El Hadj Malick benn stratégie la woon rek comme ni ñu ko waxee ñoom d'une manière aussi simple rapidement comme ça euh, bëgg ñu avaler comme ça en fait stratégie stratégie pour defar daara pour tasar islam pour pour voilà kon loolu dafa doon dafay inscrire ci benn doxalin bu général boo xam ne ça ne concerne plus que li nga xam ne moom mooy El Hadj Malick Sy mais dafa concerné tariqa tijaniya d'une manière générale seen gisin ak seen doxalin ci ci tubaab bi ndax mu ñëw posé question sax sa war Picard euh, infiltré wu la tariqa tijaniya pour daal di koy changer à l'intérieur parce que tubaab yi comme xamoon euh, comme tubaab yi seen doxalin surtout à cette époque am na lu bari lu doon faral tuddee l'entrisme pas euh, l'espionnage l'entrisme mooy da ngay dugg ci et investir dans les structures pour changer d'autres les structures. Bon, oui. ils ont fait ça avec l'église, hein, l'église catholique, chrétienne. Euh, Moi un groupe qui a clergé à chaque fois ne ko pas infiltrer pas pour tirer des informations mais pour former des personnes qui ont accès ba accéder ci euh, euh, ci de décision yi nous changer doxalinu seen seul problème benn groupe kese la ñu amul problème ci loolu mooy d'une manière générale l'islam parce que l'islam amul benn clair à part yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te alquran bi mu indi mënoo ko changer sunna bi tamit mënoo ko changer mënoo ko falsifier donc ils ont problème l'islam mais pàcc-pàcc yi nekk ci l'islam am ay njiit xam nañ ne bis boo changer njiit bi rek changer doxalinu doxalinu doxalinu doxalinu doxalinu groupe bi so na nga xamee ne ku infiltrer christianisme ba daal di jël euh, ba am influence ci pape bi am ci papauté bi am fay influence décision yi fa muy jugee da ngay le le catholicisme donc boog euh, catholique dang koy dang koy changé complètement parce que pape bi est vu comme quelqu'un de d'infaillible moo da ku ñëw tamit ci tariqa tijaaniya bis infiltré kam le xalif bi non, soo changé le <laughs> gi soo infiltré xilaafa gi moo mu nga jël yeneen tariqa yeb boobaa tu peux changer doxalin yoon bi doxalin motax peut-être dañ ci mës a def ay euh, yaatal euh, même situation bi xam mooy am ci euh Cheikh Ibra rôle bi mu joué ci ci tariqa Mouride est-ce que nekul rôle wu mel noonu euh, jege gi mu jege won Touba bi ak gis doxalinam ni mu wuteeg lu baree baree baree bare ak li nga xamné mom mo moo ci ki ki formé tariqa Mouride Sëñ Touba am mën nga penser est-ce que c'est pas même procédé mais fini tamit il y a des choses yoo xam ne c'est troublant clair yoo xam da gis un changement s'est opéré ci koo xam ne foo ñu xam ñu xam ne le pécat ni xam liñi euh liñi wax lu mu lu mu lu mu doon donc on peut penser que tariqa tijani ci bopam à un moment donné a été infiltré mais li permettre ñom ñu mëna infiltré daal di mëna doxal ay mbir c'est parce que fam am loo xam ne lu mën a ci bir dafa lo xamne ne mën ko soxat mën nañ ko mën aw fan mën nañ ko fa fekk fekk nañ ko fa mën ko mën ko soxat moy am na lay mooy am nit koo xam ne dañuy jàpp ne nit ki c'est c'est faillible muntu juum na mu wax noonu la donc soo demee daal di koy contrôler rek finalement donc le reste le reste ce qui n'est pas possible pour la salafi la salafia حتى محمد ibn عبد الوهاب bis wàccoon yoon naam bis bu ñëwoon daal di nekk koo xam ne dafa wax lu wuti alquran sunna day gis dañ koy sànni daal teg fële ndax nekkoon moom mooy amul clair yi ndax sa koo tudd rek ñu tudd la keneen ka ci xaw kon moo ko jiitu abdul ko xamne ci lay moy ay téréem moy fa jaar moy nek yoon bi nga xamne ko fa jaar daal nekk koo xam ne kay nekk dañ jub dan lan la dañu am règle bo xamne moy règle bu ñëpp ko la a am kullun yuxazu min qadar ku wurul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay waxam amna les te jël am les koy les koy delo mom rek Muhammad sallallahu alayhi wasallam ko moom kese lan tut delloo ay ay waxam kon à partir de ce moment là c'est impossible nga ñu dal leen invité dal changer sen doxalen tay mais tariqa tijaniya on sait que cheikh bi serigne bi waxuma sax sëriñ bu mag ba waaye ki lay jox rek am na benn role bu muy joué am na benn statut bu mu am jëm ci euh, par rapport ak par rapport bi kon nañ ñoo taxaw ci ki nga xam ne mooy Aurélie Picard Aurélie Picard moom histoire am na benn roman historique boo xam ne ki ko bind mooy José Lésini euh, lu bari ci information ci mi ngi ko tuddee Aurélie Picard princesse Tijani lu bari ci information yi nga xam ne nit ñi ko indi foofu la foofu ci kan Aurélie Picard Aurélie Picard ab français la boo xam ne baayam ab gendarme la woon gendarme boo xam ne da doon servir ci ci Algérie la nekkoon di servir moom mooy baayu Aurélie Picard euh, Aurélie Picard mi ngi juddu 1849 faatu 1933 1949 ak 1853 1951 c'est la même période le à ak numérique. Malik mi ngi de 1930 la Malik mi faatu 1900 1922 la même génération Quand ko wax pas papam gendarme on woon boo dafa ci armée euh, ci armée française ci ci ci Algérie olympique am nañu wax ne ci mille huit cent soixante dix ko euh, tamit sa mag ça correspond ci dugguñ ci at yii nii ñuy wax ni dugguñ ci fi nga xam ne fa la lañ mari commencé changer position en tout cas euh, collaboration daal tàmbali mille cent soixante dix ci la euh, fi nga xam ne moom mooy Algérie nekkoon bu nañu wax moy dañuy tuddee la moo nekkoon dam de compagnie jabaru ministère des postes français en 1870 En 1870 mon correspondant, mon correspondant de médecine, défaite euh, c'est une guerre bu fait en Algérie exilé quoi à Porto Comme moi, déjà il y a des il il y a beaucoup ci poste qui muy occupé qui dafa lié entièrement avec la colonisation française en Afrique naam natoo ma fa nga xam ne moom mooy euh, moom mooy euh, Algérie ki nga xam ne moom beneen ku ñuy tudd mooy Sidi Ahmed Ahmed Tijani di sët ci Ahmed Tijani ci étape ci année yooyu noonu la bokk ci jamono yooyu ci la gis ki nga xam ne mooy euh, kii di Aurélie Picard mu daal koy bëgg pour rafetal kàddu mais ci instant yoy noonu wala bok avant bobu ci 1868 mais sax balaa ci ñëw ci ci ci ci bëggoog ci 1868 amna ñen ben groupe ben famille ethnie bu jege ak tariqa tijaaniya ñu delee uddu si di cheikh yoo dañu commencé ben révolte dañu commencé révolte contre la la France ils ont commencé révolte contre la France Qui, contexte boobu noonu kii qui décide Ahmed Ahmad Tijani il ñu daal di koy jàpp tubaab bi daal di koy jàpp ndax dañoo gisoon moom ak mo ethnie yooyu noonu tariqa tijaniya dañoo am rapport ak tariqa tijaniya kon tubaab bi daal di daal di sib mu am benn soupçon bu ñu am ci Sidi Ahmed Amara Tijani ne révolte boobu moom moo ko moo ko waral ànd ak ne gis nañ mu dëkk ak ñoom di wax ak ñoom ñoom na ci ñun ñoo doon dem pour doon dem pour euh, jéem leen convaincre pour ñu bàyyi révolte bi mais tubaab yi loolu ils ont compris que comme moom moo nekk ca moom moo nekk ci ci ci ci ci ginnaaw kon si Ahmad Tidiane boobu ki dañ ko jàppee naam ci da ko tubaab yi daal di eh, daal di daal di daal di jàppee daal di koy exilé un an fële ca fële ca ca ca ca ca Alger naam jàppal mooy vers les années huit cent mille huit cent soixante soixante dix année yi nga xam ne moo correspondre rek Aurélie Picard daal di ñëw fi nga xam ne moom mooy euh, moom mooy Alger les années noonu Ahmed Ahmad Tidiane mi nga am vingt ans ñaar fukki ñaar fukki at la la am Seydi Amar Tidiane boobu noonu baayam mooy Mohamed As-Saghir mooy tamit Mohamed Al Habib Al Habib amoon na benn demi-frère bu ñu tuddee Seydi Bachir. Tijaani domo domo bayam la ci ginnaw defet bobu noonu en 1870 ci contexte révolte bobu noonu ak jàpp bi ko japp exilé ko bo dañ ko exilé pendant un an Alger ci le décidé dem France naam ci le décidé daal di dem dem dem fa nga xam ne moom mooy moom mooy France ba mu France dañuy wax né amna na ñenn yu tudd dafa mel ni c'est-à-dire fi ñu mi ngi gisee mi ngi ko gisee Alger mu nga ne France la ko gisee mais c'est presque la même date soixante dix soixante neuf soixante onze foofu mu gis ko bëgg kon da koo bëgg a takk bàyyu Aurélien Picard bañut mais mu ne da koy tegale ay condition bokk na ci condition yi mooy day rester chrétienne bokk na ci condition yi nga xam ne principal condition ko tegal mooy day day nekk li nga xam ne mooy euh, mooy chrétienne

Lala Yamina, am madame madame Aurélie mu commencé nak bañ ko place occupée mu occupé marié wu ak ki nga xamné moy mooy mooy euh, nondool Tijani mu commencé soit Algérie Alger parce que nga ne France français décidé pour calmer révolte yi nga xamné mom Mon Algérie surtout تروب يي غام نيو جي غان طريقه الطريقه تي يعني كون يالي كو فاي تي تي كونتكست بوبو نونو تي لا ماريك ما غيس ني بام ماريك موم ريك لي زون اكسبتي باور كوم دا ديلسي اندك سوخنام دا دي نيو في غام نيو موي الجي كار مينتن لا رولا ا سيد احمد بوب مي فاتو 1897 مو فاتو اوريدي داري سياتك كي غام موي سيدي يعني <laughs> Cheikh Baye Tidiane Touré nañ ko moom mooy doomu baayu kenn mooy Sidi Ahmed euh, Amar foofu noonu la première question mooy euh, tubaab yi am amuñu amuñu coutume du donnante sa sa doom sa jabar euh, faatu sa mag doon ko rek loolu nekkul coutume français mais fii français gis nañ te ni que Aurélie Picard mu continuer am du juin mu continuer nekk ci ci hiérarchie bi moo tax ba Sidi Ahmed Amar daal di faatu en 1897 dafa sëy ki nga xam ne mooy Sidi Bachir ah Atta Elle a la demande tous à conserver ses fonctions Aurélie Picard moi, dafa ne da doon def ay action action euh, euh, da doon dimbali nit ñi nekk bari respect Mm, li ko symbolise mooy soo demee ba fi nga xam eh, la mm, mi ngi fa ñu suul ko ba dañ koy dañ koy ziar suñ ko eh, dañ koy dañ koy dañ koy ci eh, de de Kourdane mi ngi faatu ci quatre la quatre-vingt-quatre ans la la faatu le 1933. Aurélie Picard bi dañ décoré à un moment France ñu décoré ko jox ko chevalier de la légion d'honneur avant muy faatu mooy pour service rendu à la à la nation ba guerre mondiale daal di amee tamit dafa convaincre jëkkëram moom mooy ki convaincre jëkkëram mu gaawantu daal di yóbbu beaucoup recruter dit ci ñu jàppale France pour ñu daal di koy libérer ñu libérer sa patrie libérer surtout sa région parce que moom Lorraine la Lorraine la loolu la elle a participé, elle a participé ci di euh, recruter naam li nga xamné mom moy euh, euh, les euh les ñoo Elle da leen susp suspens ay suspicion soupçonné cette période correspond même période bi nga mi changé même période elle il a il a tout fait pour que ñu libérer la sa patrie musta munte musta am benn rupture entre moom ak dundam d'avant mooy en tant que la femme bi nga xam ne euh, dafay jouer benn rôle ci colonisation française lépp daf ko daf ko euh, euh, fonction yooyu noonu wala bokk rôle am boobu daf ko maintenir tout en étant koo xam ne dafa amoon influence ci tariqa tijania am influence ci ñaari jëkkërama ci ñaari jëkkërama jëkkëram yëpp li koy prouver ma fay li koy prouver mooy même rôle bi Alaaji Malik am ci guerre mondiale mu même rôle la la la am foofu noonu tubaab yi tiijaan yi tàmbalee nekk seeni i euh, tàmbalee nekk li nga xam ne mooy seeni seeni seen i seen i alliés wala pendant cette période là amatut euh, suspicion yaa une française xam dafa bokk ci euh, tariqa bi léegi wala bokk en tout cas jabaru sëriñu sëriñu tariqa bi la moom fa moom fa influence am influence ci ay jëkkëram dootoo digg problème tiijaan ak li nga xam ne moom mooy Euh, terme tijaan ak euh, tubaab bi au contraire tijaan yi sax dañuy fër nag di woote nee nañu jàppalante ak tubaab bi foofu la ñuy jeexalee mooy li nga xam ne mooy beneen feeb yi relaté mooy ab lettre boo xam ne dañ koo bind mu leer naam ci wax seen position seen taxawaay ak nga xam ne moom mooy mooy tubaab bi et là tu vas changement am na te lettre boobu noonu ñuy bind diko tassare te yónni ko sax ci yenen ñi nga xam ne Sénégal bokk na leen bokk na fi ko yone Sénégal ak ñu ci adressé wu ay wa Sénégal ak adressé wu ci Malick Sy di len wax pour ñu changer taxaway wala boog ñu am jappelé li nga xam mom moy mom moy euh mom moy tuba bi et ça correspond juste après ba nga xamee ne Aurélie Picard marié wu nak nga xam mom moy mooy euh, sen seen sëriñu euh, seen sëriñ bu euh, seen sëriñ bu bu mag bi. lettre bi wala boog mën nañ ko tuddee discours discours la sax ndax discours la ab xutba moom def ci kanamu tubaab bi ñu ko njëkk a génne mooy la presse libre euh, benn euh, journal colonial euh, français bu nekkoon ci Algérie ka ko def mooy Sahih Mohammed al Kabir Sahih Sajid al Kubra li tax mu solo moo dafay retracé moom dafay retracé discours dafay retracé seen relation ak tijaani ak ak tubaab yi ak changement yi ci am ak jàppale yi ci yi ak li koy symboliser ak ñoom cofeel gi ñu am ci tubaab yi ayib moom dafa tàmbalee di retracer mi ngi ko tàmbalee ci wax yu neex nee na innahu innahu min alwaajibi alayna إعانة حبيبة قلوبنا ماديا وأدبيا وسياسيا ولهذا فإني أقول ولهذا فإني أقول لا على سبيل المن والافتخار ولكن على سبيل الاحتساب والتشرف بالقيام بالواجب نعم لمي وهني dafay dafa war ci ñoom ñu jàppalanteeg tubaab yi dimbalanteeg ñoom du leen sax tubaab yi dane iaanatu xabibati qulubina jàppalanteeg ñi nga xam ne dañoo sori seeni xol seeni mbëggeel lañ leen lit ci manière matériel ak politique mu ne li muy bëgg tudd nag tudd ko ngir rëy de tudd ko ngir puukarewu de mais daf koy tudd ngir daal di koy wàññi honneur bi ñu am ci daal di taxawee ñoom la leen war mu tàmbalee wàññi mu ne ci atum 1838 moom la ko tàmbalee nee na ci atum 1838 kaana jaddi saydi muhammad sagir wala kaana jaddi saydi muhammad sagir raisul tijaani yowma id adhara shajaatan naadira في مقاومة أكبر عدو لفرنسا من؟ الأمير عبد القادر الجزائري وما أن, وما أن هذا العدو يعني أمير عبد القادر حاصر بلدتنا عين ماضي وشدد عليها القناع ثمانية أشهر ممننا في 1938 كيلي مامم سيد محمد صغير دفعوني أك نيامبار خمني قو نيولا قرار لأنه نيامبار جو mooy dafa taxaw daal di xeex ak euh, noon bi gën a mag ci français yi moom Abdul Qadir Jazairi moom la xeexal ànd ak ne Abdul Qadir Jazairi ñëwoon na daal leen di ñoom assiégé leen lu toll ci huit ci huit ci huit mois mu daal di ne mu ne ci atum mil six cent quatre-vingt-quatre fii moom gaxoon na gën a sori sax leen fi fi ñu nekkoon ci mu daal di tuddal ki am ne mooy beneen nijaayam ku ñu tuddi Ahmed euh, Sidi Ahmed Sidi Ahmed moo ne moo jamono tamit sax sa jot Tijaan yow may lu mu def mooy jàppale tubaab bi ba ñu daal di euh, bi ñu tuddee Biskra mu ñëw nag ci atum 1870 mu daal di tàmbale nettali li taxoon kii di Sidi Ahmed daal di dem fa nga xam ne moom mooy euh, France ba daal di fay takk kam ne mooy Aurélie Aurélie Picard muy wax mu nettal loolu ba daal di indi mu ne wàlli kay wàlli kay mooy dem ka mu dem foofu mooy ci 1870 monsieur Ahmed تمر تمرين ولكي يظهر لفرنسا ولاءها أو ولاءه الراسخ وإخلاصه المتين ولكي يظهر لفرنسا ولاءه الراسخ وإخلاصه المتين وليذيل الريب وسوء الظن اللذين ربما كان باقيا في قلب حكومتنا الفرنسية العزيزة عليه لم ودم تسيد أحمد دم فرنسا mooy dafa dem mooy ma ne pour xoolaat euh, ña fa nekkoon tirailleurs yi dans une guerre moom les Autrichiens et cetera mu dem fa mooy lan mooy pour won ne français yi moom dafa collaborer ak ñoom collaborer boo xam ne c'est ancré ak benn sincérité bu dëgër këcc pour dindi bépp sikki sàkka boo xam ne dafa nekk ci seen dafa nekk ci seen ci seen xol bokk na ci naam mu dindi bépp sikki sàkk wala bépp mauvais soupçon mu dindi seen xol bépp sikki sàkk wala moof soupçon boo xam ne dañ ko am jëmale ko ci jëmale ko ci ñoom mooy ci foofu noonu ci la takk ki nga xam ne mooy Aurélie Aurélie Picard boobu noonu moom téere bi day wax na waaye tubaab yi buñ ko bëggee koon ne dañoo am lu ñu wax ci moom mooy Aurélie Picard bi Sidi Ahmed Takk la la xukkumi wax ci moom mooy de manière officielle danañ ko jëlaat ko daal di koy tabbaat li ko waral ñu ne li an sayida قد أدارت الزاوية التيجانية الكبرى إدارة حسنة كما تحب فرنسا وترضى من ndax سيد كي nga moy سيدة أوريلي بيكار moom dafa doxalee zaawiya tijaan da koo doxalee ci doxalin boo xam ne dafa nekk ca la nga xam ne moom la tubaab yi bëgg daal di koy gërëm ñu ne ndax dalee na ci na mu yore jaawiya bi dalee na di indil mooy ak mbay gu gu naat ak sàmm gu gu gu gu jaar yoon loo xam ne mun doon na génne ci loxoy algérien yi te kam noon la leen dimbali ba ñu mën a recruter ci algérien yi seen pour seen pour seen armée seen seen guerre ba ñu ànd mën a ànd ak ñoom وجاهد في سبيل فرنسا دي خيخك يعني عندك فرنسي دي خيخ صفا كأنهم بنيان مرصوص للكلمة وكبير متر ويوريلي أوريلي بيكار تي مو كونتيني مو نتي أتوم 1881 متي محمد كبير ما يعمل 1881 مو نتي كان أحد مقدمينا مو نتي يعني مقدمي سيد عبد القادر ابن حميده نينا مات شهيدا دا فا دين نيك مارتير عند كان بن كولونيل مون تودي فلانير نينا كو دون ديمبالي كان يعاون ولا احتلال بعض النواحي الصحراويه دا كو دون ديمبالي عند كولين بيكو ديمبالي بور ني دادي اوكوبي نعم ين ويت كي نيكون ولا ين ريجين نيكون تي تي ديزير مو كون نباتاي مون تي اتوم 1894 1895 bàyyi leen xel bu baax nee ci la ju digale nee na waaliyu jaza ci leen digale ñu bind ay lettre lettre yoo xam rasail tawsiya mu ne fa katabnaa inda rasail wasdarna iddata awamir mu ne ci la ñu bind ay lettre yu bari daal cee def ay ndigal yu bari ila ahbaabi tariqatina yóbbu ko ci ñi nga xam ne ñooy ña bëgg seen tariqa bi yóbbu leen fii biladi Hakaar wa Suudaan mooy fële ca su waxee Suudaan ci jamono jooju mooy l'Afrique noire nu xbiruhum ñu leen di la leen doon leen doon xamal ñu leen diw sàngam da ngay ñëw seen dëkk wala boog ñi nga xam ne ñooy nekk seen dëkk ca tubaab bi ñu leen di digal lii ñu daal leen di toppal di leen dégg wa na'muruhum bi an laa yuqaabiluha illa bis-sam'i wa taa'a wa an ta'aawanuha ala ihtilaali tilka al-bilaad wa ala al-aafiyati fiiha yi nii ndigal yi nii leetar yi Malick Sy jot na ci fii di 1894 gis nga mu ngi tombeek jamono yi nga xam ne Malick Sy mi ngi tàmbale di négocier ak tubaab bi invité commencé bind ay rapport yu baax ci ci moom kon lim lañuy def ci 1906 1907 wax li nga xam ne lim seen taxawaay li am ci guerre guerre mondiale ak li ju yónnee ca li nga xam ne wax nañu yónni ko ci mille neuf cent mille neuf cent mille neuf cent treize wax nañu def ci mille neuf cent mille neuf cent seize ba mille neuf cent vingt cinq mille neuf cent vingt fekk la dañu mag daal di daal di daal di faatu lii la suñ ko toppee dafay dafay dafay xaw gudd lii mooy li nga xam ne mooy deuxième point bi nga xam ne daf ñuy tax ñu daal di mettre en question ak lettre yi ñu yónnee jóge foofu noonu jëm ci Malick mu correspondre ak changement stratégie alaaj Maalik ak tubaab bi ndax léegi stratégie la wala fa dënk fa dugg ci am logique gu tariqa tijaaniya ne tubaab yi ñoom seen i àndandoo lañ tubaab yi seen i collabor seen i ay nit yu baax lañ dañuy ànd ak ñoom di leen dimbali ñuy occupé li am na mooy population bi ñu bàyyi leen ñoom ñu dex fi ñuy nekk ndax seen i seen i xarit lañ dañ leen a bëgg nit ñoom comme ni mu ko waxee lii nii mi ngi jugee ci haute sphère ba ji gën a kawe ci tariqa ak tariqa tijaani da ngay comprendre kon euh, mariage rôle bi nga xam ne Aurélie Picard joué na ko mais dem dafa fekk loo xam ne tamit terrain boo xam ne xawoon na nooy ndax waa ji li muy nettali nii man Kabir kii mooy kii ñu waxee ñu naan xalif général des Tijani kii mooy xalif général kii mooy xalif général Tijani <laughs> ci jamono jooju noonu kon marié gi ñu jël Sidi Ahmed daal di koy marié Pulipar mu faatu ñu daal di marié waat ko tubaab yi seede ci Aude Picard defal ko li ñu doon ko Aude eh, ak jàppale gi ñu jàppale tubaab yi ak yónni ko ci ba yónnee lett ci yeneen eh, ñi nekk ci yeneen dëkk yi ci tariqa bi daal jiite tariqa foofu nekk fa loolu dafay eh, xaw a lëndëbal xelu nit ñi ci lan ndax lañu mel ban stratégie la wala dafa. nekk rek ci processus bi nga xam ne Tijaan nekk Algérie ñoom doon nañ ko doon nañ ko doxale ak ak ak ak tubaab bi kon ci gàttal mën nañu wax ne lii mooy euh, relation ci tënk naam relation ki nga xam mooy Ahmed Alhaji euh, Malick ak li nga xam ne moom mooy euh, coloni colonisation ci loolu la nekk ba mille neuf cent vingt-deux mu faatu dañuy xam ne faatu 1922 amoon na katarak koo xam ne katarak gu ko xaw a xaw a gumbal ci 1922 waaw mi faatu doon ta bind téere bi ñu tuddee kifayatu raqibin naam fi ma yahdi ila hadrati rabbil alamin di téere boo xam ne dañ ci ñëw mooy nekk sunu deuxième point suñu ñëw ci ëpp ëpp ëpp mbindam mu cay dénoncé ci bunt yi jiitu yenn doxalin yoo xam ne yenn ëppal yoo xam ne am na ci tasawuf waaye lenn ci pas-pasam ak gisinam euh, euh, euh, feeñ na feeñ na ci kon mi ngi fàddu vingt sept juin mil neuf cent mille neuf cent vingt deux ca Tivaouane te foofu lañ ko foofu lañ ko foofu lañ ko suul ki nga xam ne moo ko donnu ci mooy doomam bii di di Babacar Sy Babacar Sy moo xoon nañ bokkoon na ñi nga xam ne demoon na daal di xeex yi ca guerre mondiale bi ànd ak magam Ahmed Sy ba nga xam ne foofu la فوفو لا فوفو لا فادو موم مو جيل ليغا خامني موم ماي خلافه جي غيناام موم دو نياك ني دينا نييو توتي سي موم بالا نيو جال سي سي بوين ولا نيو دادي سون جال سي بنين بوين بي دين في جال موم نيو ووتال كو وقتات بو خامني وقتان سبيسيفيك لي لي لي دون لي موي لي نبغون اندي سي اديو سي ريلاسيون point dinañ ci dinañ ci jël ci mais moy li moy l'essentiel ci ma jàpp ne war nañ ko mëna dal di retenir ci relation Alaj Malik ak ak ak ak tuba bi wallahu taala alam sallallahu ala على سيدنا ونبينا محمد صلى الله maa ngi jégal daam lu ma lu ma disturb kon foofu la ñuy yemale waxtaan bi di ñaan yàlla sunu borom dafa ñu dëgg top wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh